الحمد لله الكريم سلما على استقال بفرود وسنن سكرت لأنه قد سخني لوطن بنفى مع القنين وخادني إليه بالتهاني من بعد ما سبب التخيرين وجرني في إلى العلوم والفوز والأمل بالمحلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي خطي أنا تبعا على الذي من بمراد اقتدى في سر والجار يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فسان الدين وسيلتي لمالك الرفيع محمد الخير ولا سفيع وآله وصحبه النجوم الخاعر النفوس والرجيم wallahu yadu ila daru salaam la bamba wax ñëpp mu doora malam bisub keroog la bamba si du si barke muy walangaan daru salaam muy walangaan jëm Mbàkke fukki nag ak ñaar ak gëléem guy bambu le siidi antaren di jox ko Bamba akbar lii la saxal ñam ya ni beq daaru tan yaa ngi xiiru bukk yaa ngi gaaru ba muy ayak bi seex ni tay di nit kuy taxaw jox ko tan yi ndax ñu mandi daan ni ko jaaraama mu jàpp jaam jébbal magam sëriñ mamar borom saam daldi saxal nag ak fa daaru di rab la bamba toog ba réew ma waaru mbabor la daa suy ataaya kalsan deqan saayibul ataaya baraada buñ doore wurus mbaa xaalis ak kaasi lay naane loolu laay gis ak mbajji ak deri lay deele togoy foto ngeganaay lay boole góor ak jigéen mag ak ndaw noo leen di nuyu nuyoo ba gën a tedd ci nuyoo bu lislaam te moo di assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa ginnaaw nuyoo bi ñu ngi ñaanal ki nga xam ne moom fi nekkal Cheikhul Khadim di Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba lépp lu mu yéene liggéeyal Serigne Touba mu am ci lu kawe njortam ginnaaw loolu it ñu ngi ñaanal ki nga xam ni waxtu daaw ci heure bi moo fi nekkoon di suñ gaawaan di Cheikh Nour Fati suñ borom yokk ay leeram te taas ci barkeem ak euh, seen imam Diop mi nga xam ni moom it waxtu wi daaw mi ngi fi ànd ak ñun liggéey bi te ren mu jiitu doonoon kilifa ci gox bi suñ borom moom it yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem ak mbooleem Euh, ko kilifa goo xam ne nekkoon na fi waxtu daaw ak ku mën a doon te ren fekk ko fi ñu leen di ñaanal suñu borom jéggal leen te euh, wàcce euh, xéewal ci ñoom ginnaaw loolu it ñu ngi nuyu ki nga xam ne kilifa gu baax gi nga xam ne moo nekk fii ci biir di sëriñ Sidi moom sëriñ Ibra Ndar yàlla def mu ñëw fi tombeek liggéey bi am fii muy tawféex ci ñun ñu koy nuyu di ko dalal di ko ziar bu baax a baax euh, di ko ñaanal mu yàgg fi moom it te wér ak sunu kilifa gu baax gii nga xam ne euh, mooy sunu président d'honneur di Baye Mbacke Anta xalifa Alaaji Sëriñ Takko euh, di ko nuyu moom it di ko dalal di ko sant bu baax a baax di ko ñaanal moom it mu yàgg fi te wér ak ku baax kii mu dendal di Baye Mbacke moom Serigne Ibra Thiam moom it euh, ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar euh, di nuyu mbokk yu baax yi nga xam ne ñoo fi teew di euh, madame Cissé ak waa district bi mu àndal bàyyi ko Bambey ñu leen di nuyu ñoom it di leen dalal di nuyu mboolem koo xam ni teew nga fi tey buñ dee lim xëy na duñ matale di nuyu it madame la maire soxna Yaaku moom it di ko dalal bu baax a baax euh, di ko di ko di ko tatagal ak mboolem koo xam ne euh, teew nga fi ak euh, foo mën a bàyyi ko ci gox bi. di di di di sant bu baax a baax ñi fi teew ñëpp defe naa bu ñu limee rek duñ duñ matal kon dañuy jël cant gi sant ñëpp rek. ci ci ci bàyyi giñ bàyyi yitte ndax ku ne xam na ni jamono xat na fi mu toll ak tabaski yi ñu génn euh, ak ak ak euh, waxtu gaaw bi waaye bi ñu wootee woote bi li muy xat-xat ñëpp bàyyi nañ seen yitte euh, déglu nu ba ñëw ba ak si toog ànd ak ñun liggéey bi kon amee luñ amu amuñu seen fay amuñu seen fay ñu leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla képp koo xam ne ñëw nga fi aaju joo fi indi yàlla ko suñ borom faj waaye tànk yoo fi indi ñëw gi ak dem gi yàlla na ko suñu borom def aw yiw te tasaare ko ci mboolem jullit euh, di sant bu baax a baax na euh, waa gaawaan ca kanam waa gaawaan ca kanam muy kuréel gi nga xam ne euh, waxtu yi daaw lañ ko sosoon ci ndigal sunu kilifa yàlla def mu am at boobaak léegi ñu wootewaat bisub tey bii ngir woote bi nga xam ne defoon nañ ko daaw ngir wax nit ñi liñ bëgg ak fiñ jëm yàlla def ñu ñu ñu ñu dem fukki weer ak ñaar kon jaadu na bu matee ñu woowaat nit ñi bañ ñëw ñu ni leen ah ndigal liñ laajoon woo leen ci ab liggéey liggéey bi kat fii la toll lii ak lii ak lii lañ ca def loolu nag Euh, gaawaan ci kanam ab daayira la boo xam ni wax nañ ko fi waxati ko fi euh, boo ab daayira la boo xam ni euh, liggéeyal yàlla rek ko tax a jug jaare ko ci suñu bunt sëriñ gaawaan ndax sëñ gaawaan it dëkk bii dafa nekkoon dëkk bu mu fonk lool muy gaawaan ba moo ko sancal boppam ci ndigal lu sëriñ Touba ba noppi dëkk fi lu mat lu lu war a jege fanweeri at ku ne fekk ko fi waaye liggéeyal fi yàlla lu ne ba Serigne Touba ci boppam sax fekk ko fi kon ñun amuñu lu ëpp dëkk bi comme amuñu lu ëpp dëkk bi nag ñun ñoo war a laxasaayu euh, defaral ko defaral ko suñu bopp ku ñëw fekk nu ci kon euh, waa gaawaan ci kanam euh, ñu ngi leen di sant di tàmbali cant gi ci commité directeur bi nga xam ne 30 membres lañ yoo xam ne ñoo composé daayira bi Euh, euh, daaw ba ren ñoom ñooy doxal liggéey bi euh, ci biir ak ci biti lu ñu yëg ak lu ñu yëgut lépp lu ñu fi gis lu ci ëpp comité directeur bu ñoo ko doxal ak ak membre yi ko seq ñëpp waaye ci biir membre yooyu am na am na ci lu juróomi commission yoo xam ne daanaka liggéey bi yi ngay fi gis yëpp ñoom ñoo ko liggéey kon gaawaan ci kanam daal ak kuréel la koo xam ne liggéey yàlla rekk ko tax jóg waaye ci dëkk suñ gaawaan bii nga xam ne amuñu moom kon daal ñu ngi leen di sant di gàttal kaddu yi rek di kaddu yi euh, cant la doon doon ci turu gaawoon ci kanam ak kaddu yi dalal mbooloo mi ci ak ak ak ak gërëm leen ci euh, waxtu yi ak ak ak ak euh, yitte yi ñu bàyyi ñëw toog ànd ak ñun bés bi kon ñu ngi sant ñëpp di di gërëm ñëpp ñu ko ñàkk sant muy soxna Astou Mbaye mi nga xam ne moo jiite képp kuy jigéen ci gaawoon ci kanam buñ ko santee moom sant nañ képp koo xam ne jigéen nga te ne ci liggéey bi ndax euh, jàmbaar lañ lool lool lool ci liggéey bi bu buñ fi lu ngeen fi gis rek daanaka bu dee fukki juróom-ñettee mën naa ne ñoom ñoo ko ñoo ko def kon gaawaan ci kanam amal nañ leen ak cant sëriñ bi amal na leen ak cant. mbokk yi ñoo ngi baalu xàq ñépp ci lu nu yëg ak ci lu nu yëgul di baal xàq ñëpp di leen jéggalu te ñaan suñu borom bu defal ñu ak jéggal gu sax dàkk barke Seexul Xadiim ñoo ngi jiital ci nuyoo boobu sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke mi nekk ci biir di ñaan suñu borom subhanahu wa defal ko fanu gudd lool tam barkeel te ci teg sëriñ Mbacke moom alaaji sëriñ Takko mi président d'honneur bu xidmatul Mokhtar Gawane ca kanam di ñaan borom mu defal ko fanu gudd lool tam barkeel di ci teg sëriñ Mbacke Anta moom sëriñ Ibra Asu Thiam moom mii toog di ñaan suñu borom defal ko fanu gudd di ci teg sëriñ. di ci teg Serigne Mbaye Mbacke moom seen Sam Mbacke moom it di ko ñaanal suñu borom defal ko fan bu guddal te di ñaanal mboolem kilifa yi fi teew di nuyu madame le maire soxna Yaku Kan di nuyu soxna Assou Mbaye mi nga xamante ni moo jiite soxna yi di nuyu képp ki fi teew di góor di jigéen di mag di ndaw di ñaan suñu borom defal ñu tawfeex ak taysiir barki seen xaddim mbokk yi bu ñu fàttalikoo dimanche le 2 août 2020 dañ leen a woowoon yéen ñëpp fii. ngir présenter leen lii di xidmatul muxtaar gaawan ca kanam mu nekk benn modèle de développement boo xamante ni comme ni ko ñëpp xamee rek dañ ko royee ci Touba ca kanam muy booloo bokk xalaat bokk pas-pas bokk di yëkkateendoo bokk di tegandoo bokk génne sunu ñaq ci lu ñu suñu borom wërsëgal liggéeyal ko maam Cheikh Anta ci dëkk bii ñu xam ne loolu yi rek mooy pas-pas bi nga xamante ni moo tax ñu taxawal gaawan ci kanam bi suñu borom dogalee ñu woote fii yéen ñëpp wuy si ngeen kenn ku ci nekk dagg nga sa carte membre 2000 francs chaque fin du mois ngay dagg reçu 1000 francs kon bu yàlla dogalee ñu def at war nañoo teew fii leeral leen seen liggéey li nga xamante ni moom lañu dajale ak fi ñu ko def ak li ci des foo yi nga xamante ni jox naa leen ko moom laa leen bëgg a leeral mooy liggéeyu Gaawante Kanam ci at mi bu ñu xoolee ñu commencé mois d'août ba mois de juillet nekk fukki weer ak ñaar benn bu ci nekk rek xam nañ weer bu ci nekk li fi dugg ci ay reçu 1000 francs août 551 150 moo dugg ci Gawane ci kanam septembre 928 440 francs octobre 660 000 francs novembre décembre moom lañ boolee mu nekk 296 000 francs janvier 172 200 francs février 330 000 francs mars 157 000 francs avril 102 000 francs mai 54 000 francs 4 juin 99 500 francs juillet bi ñu nekk 71 500 francs montant reçu 1000 francs yi toll ci 3 millions 421 790 francs bu ñu xoolee li nga xamante ni mooy jaayante yi jaayante yi ñu doon def ci groupe bi te ko doon jàllale mi ngi toll ci 1 million 365 500 francs jaayante dakaar Massalik bi mu ngi toll ci 1 million cent francs jaayante yi ci ñëwaat ci diggante bi toll ci 65000 francs montant jaayante yi mi ngi toll ci 2 millions 431 800 francs kon buñ boolee ñaari xaalis yooyu muy reçu 1000 francs yi ak jaayante yi day toll ci at mi gaawoon ci kanam liggéey 5 millions 853 590 francs 5 millions 853 mille 590 francs loolu mooy li nga xamante ni moo dugg ci Gaawante Kanam ci at mi bu dee li jëm ci wàllu dépense yi dépense yi ci gën a mag mën nañ ko lim mooy li jëm ci wàllu poste de santé bi te ngeen gis ko nii suñu kanam valeur bi mi ngi toll ci 2 millions 680 mille francs am na tamit ay détails waaye comme temps bi duñu ko may ku xoom ku xool feuille bi rek di nga gis détails yi li commencé table de consultation ba paravent lépp détaillé nañ ko mu ci biir ambulance bee ngeen seen comme noonu ko sëñ Mbàkke leerale rek toog na ab diir tombé en panne waaye gaawante kanam dafa génn 840 000 francs def ko ci ba mi dawat nii détails yi tamit gis ngeen ko mi ngi nii ci feuille bi. li ci topp mooy rajo jumaa ji ku ne xam na ne boo fa daan jullee sëriñ bi li mu daan xutba dañ daan am jafe-jafe pour déglu ko daanaka li ñu daan enregistré di ko dugg ci groupe WhatsApp yi li ñu ci daan déglu sax ñun ñu nekk jumaa ji duñ ko déglu. bi lu yàlla dogalee loolu waa Gaawante kanam jaayante cinq cent quinze mille cinq cent francs pour yeesalaat rajo yi détails yi tamit mi ngi nii leer na naan ci feuille mois d'octobre tamit Gaawante kanam jàppale na ñetti famille yoo xamante ni amoon nañ jafe-jafe ci jot ndox ci gaawaan benn famille bi 41 mille 500 francs lañ def ñu am ndox beneen kër gi 62 mille 600 francs lañu fa def ñu am ndox beneen bi 20 mille 500 francs ñu am ndox ak main d'œuvre bi lépp mi ngi toll ci 179 mille 600 francs yeneen yi ci nekk ay détails la lu mel ni sérigraphe darab yi ngeen seen ci kaw 20 000 francs blouse yi nga xam ngeen ngeen gis noonu 20 000 francs lépp di 40 000 francs li ci des ordinateur bii ngeen fii bii ngeen gis tamit mooy ordinateur secrétariat nekk 165 000 francs yeneen yëpp ay détails yu communication la jëm ci vidéo Baye Diagal yi ak RFM gox bi FM ak euh, siège yi dam woon daaw bi ñu bi ñu defee assemblée générale bi ak bloc reçu yi ñi ñi moom ñi waa table bee di jaay ak carte membre yi cachet yi ak euh, bloc reçu yu ñu dolliwaat lépp boo boo xoolee ci feuille bi dina leer nañ kon dépense yi au total boo xoolee ci suuf dañuy da nga koy gis mu nekk 4 millions 945 mille 100 francs 4 millions 945 mille 100 francs kon li dugg lépp ci compte Gawane ci kanam ci armée mi ngi toll ci 5 millions 853 mille 590 ñu dépensé ci 4 millions 945 mille 100 francs kon jamono ji nga xamante ni ci leen toll lii fi nekk ci keesu Gawane ci kanam mi ngi toll ci 908 mille 490 francs 908 mille 490 francs bu ko defee képp ku mu tamit mën nga. mën ngaa la mën ngaa laaj question boo bëgg a posé rek nañ la ko mën a leeral ba mu leer naññ. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ci turu xidmatul muxtaar gaawan ca kanam ci kaw loolu ñu ngi jiital ki nuyoo bi sëriñ Mbàkke Anta mi nga xam ne moo fi xalifa alaaj sëriñ Tàkko ñu koy ñaanal yàlla na xalifa gi yàgg si moom di nuyu soxna Yaaku Kan ak soxna Astu Mbay suñ nuyoo sëriñ Baye Mbacke ak euh, soxna Yaako ak soxna Asumbe nag yaakaar naa ne nuyu nañ gaawan gépp ci ñi xam liñ bëgg a wax ginnaaw loolu ñoo ngi toog fii ci turu commission bi nga xam ne moom la ñu waaye commission sociale ki ko ki jiite commission sociale nag mooy sëriñ Kan waaye xëy na yàlla dafa def mu jox ñu ndigal na ñu sànnil ko ay kàddu loolu lañuy ñuy jéem di xamit ne suñ bokk ci gaawaan ca kanam commune bi boole nañ ci waaye nag bi nga xamee ni bureau bi jàppoon nañ ñëw gab ña ko fekk woon xam nañ ko jarul koy lim bi ñëwee ci kanam sëriñ bi bi ñëwee daf ne ma carte bu njëkk bi man maa koy dagg moom moo ko dagg moo ko signal boppam daal di may jox ndigal na ma nag àndal ak ñoom ci liggéey bi kon bokk ci gaawaan boole na ma ci waaye ndigalit boole na ma ci moo tax nag duma ci am lenn loo xam ne dama ko si ñooru ndax sama waajur moo ma si jox ndigal ci kaw loolu ñu ngi jël suñu kàddu ci commission technique et sociale bu ñu waxee technique et sociale nag yaakaar naa ne buñ ñu nee sociale dafa ëmb lépp ndax li nga xam ne mooy réalisation yi ñu ko ñu def ci poste de santé bi bi nga xamee ne Gawane ca kanam xalaat nañ ko ñun lañ sasoon ñu def jéego yu njëkk yi bi ñu àndee ak ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ ko bokkal ñu dem ci poste de santé bi ñu toog wax ak madame Cissé laaj leen seeni jàmbat ñu wax ñu ko ñu noté loolu ginnaaw bi ñu jógee fi ñu dem ci soxna Yaaku Kan biñ demee moom it mu teggal ñu benn saal ne saal bi dinaa ko tabax kon nag yéen da ngeen di jéem a jël réflexion euh, ngeen jéem a jël matériel bi équipement matériel met saal bi loolu ñu façon ko yéene alhamdulilah bi nga xamee ne yàlla dimbali nañu ba loolu tey réalisation boobu def nañ ko comme ni ma jiit ñi ma jiitu niñ ma ko waxee muy ambulance bi it loolu it réalisation yi def nañ ko ci kaw bi ñu réalisé am nañ yeneen mébét yoo xam ne ni xalaat nañ ko fas yéene koo def li nga xam ne mébét Gaawante Kanam mébét nañ ko ci suñu kanam liñ ciy njëkkee fas yéene njëkkee mooy bërëbu suturukaay yi nga xam ne moo nekk ci marché bi fas yéene nañ ko yeesalaat ba mu mucc ay ba nga xam ne képp koo xam ne ñëw nga fi boo amee ajo yàlla dina la mën a dimbali aajo jooju mën a faju dëkk yi nga xam ne it wër nañ gaawaan te wàllu courant demeewu fa noonu am nañ yéene dox ci ay jéego ba nga xam ne seen jàmbat yooyu ñu saafara ko bu dee yeneen dëkk yi wër gaawaan ba tey ci muy ay case de santé wala muy ay poste de santé comme nii nga xam ne defee nañ ko ci poste de santé bi nga xam ne moo nekk ci commune maire bi fas yéene nañ ci ñoom it ñoo ñu jàpp leen si wàllu garab ak it bu fekkente ne case yoo xam ne nii laaj nañ ñu ériger leen am poste de santé it loolu it gaawaan ca kanam incha allah fas nañ cee jox seen i jéego ak wàllu ndox comme ni ko sëriñ Tàkko mi ngi jiitu waxee. am na bërëb yoo xam ne nii dimbali nañu ay doomu aadama jàpp na leen ci wàllu ndox loolu it ba tey ñu ngi koy fas yéene ci yeneen dëkk yi nga xam ne nii aajowoon nañ ko li nga xam ne it mooy ci wàllu njàng mi ci classe primaire muy école primaire bi école élémentaire bi xam nañ ne gis nañ ne xale yi am na ñoo xam ne ñii dañuy jàng suba ñii di jàng ngoon te loolu képp kuy kat xam nga ne gënul te lan moo ko sabab mooy ay classe yu manqué gaawante kanam fas yéene ñu dox ay jéego ci bu ñu leen mënee tabaxal ay classe loolu it ak képp ku leen ci mën a jàppale ñu jéem réaliser loolu bu ajoo ci yi nga xam ne it mooy CEM bi muy collège bi gis nañ ne it xale yi nga xam ne ñi fiy jàngee di jóge ci dëkk yi nga xam ne dafa sori gis nañu jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel xalaat nañ bu fekkee mën nañ ko ñu defal leen li nga xam ne moom la ay internat ñuy interne wa illa ñu jéem leen a wutal ay kaar yoo xam ne nii dañ ciy dañ leen di jëli di leen indi bu ko defee boobaa nga xam ne dañ koy fay muy loo xam ne ni recette boo xam ne ni day mën a ci keesu Gawane ca kanam éclairage public maanaam bu ngeen demee ci dëkk yu mag yi gis nañ léegi yi nga xam ne ay solaire lay doon ay poto yu mag lay doon boo xam ne nii foo jaar dafay leer loolu it Gawane ca kanam bokk nañ ci seeni mébét li nga xam ne ni mooy reboisement wàllu garab am na foo xam ne ni Gawane ca kanam dem nañ fa ci ministère de l'environnement ba jox na leen luy tollu si junniy garab garab yooyu mi ngi fa li tax ñu bàyyi ko fee dañ ne xam nga garab dafay toll dafay am foo xam ne dafay toll ñu koy doog a jëmbat tey li gën daf nañu bàyyi ba nga xam ne mois de août bi dugg na ñu doog leen koo jëli pour jëmbat ko loolu it bu ñëwee incha allah dinañ ko séddale ci commune bi nga xam ne ñëpp ñoo bokk gaawante kanam loolu daal ci tënk euh, comme ni ñu ko waxee ndax waxtu wi dafa gàtt mooy yi nga xam ne mébét yi nga xam ne gaawante kanam fas nañ ko yéenee def tey ñaan sëriñ si ñu jàppale ñu ci doole dooley mag ñi fi toogal ba yàlla loolu def ñu jàppandal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Mor Niang ma nga ne téeméeri junni ak fukk ak ñaar la yónnee tey ci compte Orange Money carte yañ ko joxoon moom mu fayal ko boppam ak njabootam loolu nag day jëf joo xam ne sëriñ bi bu ko kenn solo nañ ko wax ñëpp dégg ko ndax day jëf ju am solo envoyé na sëriñ Jili téeméeri junni ak fukk ak ñaar léegi sëriñ Jili envoyé woon na ko sëriñ Sayar Kan moom denc mbirum xaalis bi sa yar nag na compte bi wóor ndax xam naa gars yi ñu ngi lay dégg gars yi sant Fall kon sëriñ bi jëf jooju sëriñ ji dañu woon buñ ko suul na ko ñëpp wax na ko ñëpp dégg. maa ngi nuyu kilifa yi toog ci jataay bi di nuyu mbooloo mi fi toog ñëpp bàyyiwuma kenn maa ngi jaarale nuyoo bi ci sëñ Sidi Mbacke mii moom sëñ Ibra Ndar di nuyu sëriñ Mbacke Anta moom Alaaji sëriñ Tàkko di nuyu sëñ Mbacke Anta moom allah am ji sëñ Ibrahima Assaou di nuyu rakkam yi mu fi toogandool ak doom yi maa ngi nuyu taalibe yeeg ñëpp di nuyu góor ñi jigéen ñi di nuyu képp fi toog. ginnaaw bu ma nuyoo ba noppi xidmatul muxtaar gaawaan ci kanam di daayira boo xam ni sunu doom yii ñoo def jëf ju rafet. sos loo xam ne nii ñun ñi leen fi jiitu de yàgg nañ koo bëgg waaye yàlla da koo jaarale ci seeni loxo. muy xidmatul muxtaar gaawaan ca kanam ñu sumb sumb boo xam ne nii amoon yéene joo xam ne dañ koo bëgg def ci gaawaan waaye mel ne seen barkeb maam mi ngi leen ciy wallu mi ngi leen ciy jàppale ndax lii nga xam ne teewal nañ ko fii yàggees na fee taxawal lu ne waaye nag jii moom ñu ngi koy soog taxawal maa ngi sant nag bu baax a baax a baax sëñ Jili Mbàkke mi nga xam ne moo jiite xidmatul muxtaar gaawan ca kanam moo ànd ko ñi mu ko war a àndal ñëpp biñ ko xalaatee nag def ko sos ko ñu xalaat jiital ma ci kanamu soxna yi ma di leen delloo njukkal ci loolu di leen ci gërëm bu baax a baax ndax képp kuy liggéeyal Serigne Touba di liggéeyal maam Cheikh ant di liggéeyal suñu borom bu buñ la joxee ca liggéey ba ab cër nga di ca woote ñoo ñëmantoon leen a fay sëñ bi maa ngi leen di sant ci jëf jooju ngeen nu jëfal ñun soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci gaawaan li nga xam ne mooy ciy suñ cër itam mooy di jaay rusi yi rusi yi nag man dama ko ànd ak juróom-benni dëkk ñu farlu ci lool am ci pas-pas lool sonn ci lool def ci seen doole ba mu jeex tàkk maa ngi ko ànd ak soxna Mbène Mbàkke ni ma koy waxee nga xam ne fu may jaayantee mu di kulóoral ma jataay ba rafetal ma ko lool ndax fu ñuy jaaye an jaayante ji rek ñoo ànd di ci sant soxna Ami Mbàkke bu baax a baax ndax dëkk yi mën a ànd ànd nañ ci munta demit dana nu dolli am xel dolli ñu xalaat kon maa ngi leen di sant ndax mënoon na ñoo jox liggéey bi rek toog te dinu soññ waaye duñ ci dugal leen ci dugal seen loxo kon maa ngi leen di sant gaawaan tabagee nag soxna Mbeen moo jiitee njaay ma ak soxna Aada Faal ak soxna Maamanta Ñas di ci jàmbaar yoo xam ne nii kenn mënut a wax fu seenu jàmbaar toll bu dee gaawanta ba gi soxna Maamanta Jóob a ko jiite gaantaax ànd kook soxna Adama Kan ak soxna maam jaarangom ak maam an soxna maamanta euh, Diouf ñoom itam ñuy jàmbaar yoo xam ne kenn mënu leen a fay bu dee euh, langaar soxna Njóoba moo fa nekk di jàmbaar ju am solo ànd kook soxna Mbeen Jóob bu dee Tibo soxna Ndey Janga fa nekk ànd kook soxna Ndëkk Njaay bu dee Ngaraas soxna soxna asuloo moo fa nekk bu dee caameen yaa soxna jëng juróom benn dëkk yi ñoo ànd di liggéey liggéeyu jaayante jaayante boo xam ne nii dañ koo njëkkoon di ko def fukki fan biñ ko defee ba dëkk yëpp daj ñu commencé waat ko di ko def parweer weer ñu njëkkee koo ubbee gaawaan ci weer wi ñu génn di la trois ca lañ ko defoon weer wi ci lañ ko war a tegee gaawaan waaye mu sës ci màggalu Touba gi tax defuñu ko waaye ñu ngi koy def ci la 29 bi ñu dëgmal di samedi suba bii bu dee ci lañ koy def. kon jaayante bi nga xam ne ñun ñoon lan ñu ci sase ak topp carnet yi ak topp liggéey bi de maa ngi sant ñi ma ci àndal ndax bu liggéey bi egsee fii soxna yi amee ci nii pas-pas nga xam ne nii ko sëñ bi waxee ni la demee nag saa yu ñuy def résultat yi buñ seetee li daje bu dee téeméer juróom-ñett fukk yooyu jigéen ñi ñoo ko dajale kon ma di ci sant jigéen yéen ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi ba mel noonu maa ngi gërëm suñ kilifa yi toog nga xam ne ñoo ñu soññ di ñu digal li bu baax di ñu tere loo xam ne nit safaan la waruñu ko def maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp di leen sant rawatina Baye Mbacke Anta mi nga xam ne dañoo tabaxal jàkka dabaxal nu boole woon nag ab jàngalekat bu nuy jàngal suñ diine mhm. te fun toll nag mu ngi ñuy soññ ci julli gi ak woor gi ak lépp kon waxtu wi taxaw na mhm. te yàqu mi dafay tegal aada bi mhm. ma waroon koo nuyu yàlla def nag ñu bokk li gaawaan te it mi ngi ciy def lim man kooku kon bu may nuyoo te nuyuwuma ko njuumte la yaaku juumatee ma nuyu la maa ngi lay nuyu maa ngi lay sargal dama juumoon ni ko ñëpp waxee wax day fatt moo tax bi ma nuyoo nuyu ma la maa ngi lay nuyu di la sargal. ndax ba nii door man daanaa def am na boo xam ne ni 300000 versé naa ko ci ci ci bi weer léegi si tey maa ngi wàcc wàcc googu ma doon wàcc nag laa bëgg soxna yi na ngeen xam ne lii soxna yi rek a moom hôpital soxna yaa ka moom. ndax soxna si mooy dem ca hôpital ba moo yóbbu doomam mooy yóbbu boppam waaye mooy yóbbu sëriñam itam kon ñaar téeméer ñaar téeméer yi nan ko def ni añ ak reer ak natt yenee natt maa ngi leen di soññ bu baax wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe kenn ku nekk maa ngi lay nuyu ci saw tur ak ci saw sant di jël nuyoo bi nag teg ko ci suñu kilifa gu baax gii toog di sëñ Sidi Mbacke ak sëñ Mbacke Anta moom alxaaji sëñ tàkku mbàkke ak sëñ mbàkke anta moom alxaaji ibra astu caam di nuyu it kilifa yi nga xam ne yooyu aada yi nga xam ne ak yooyu diine yi nga xam ne ñëpp ñu ngi fi teew tey ngir bis bi lii nag day loo xamante ne bii yàlla rekk a tax ak yonent bi ak dëkk bi xidmatul muxtaar nag buñ ko dee wax liggéey la ndax xidmatul muxtaar liggéeyal ku ñu tànn ki la di maam Cheikh kon nag du doon wax du doon leneen jëf la jëf jooju nag képp koo xamante ni kii la koy sabab ak la koy wundu moo di nga jënd kart membre ak jaayante ak fukki weer yi ak ñaar bu ko defee fukki weer yi ak ñaar weer wu ne ñaari téeméer yaakaar naa yi douze mille lay nekk ak jaayante bi mille francs carte membre bi mil francs muy treize loolu yi nag mooy xitmat gi mooy xitma gi xitma googu yi nag mu wokk na ci li nga xamante ne bii mooy jëmale gaawaan ca kanam ndax wax rek foo ko fekk te àndut ak jëf day woyof waaye nag bu fekkee nag jëf ànd naag wax wax ji dana dëgër kon ñoo ngi ñaan koo xamante ni kii tey boo gisan sëñ gaawaan ca la mu bëgg nga fekk ko ca moo di nga taxaw ci lii nga xamante ne bi moom lañuy wax gaawaan ca kanam ndax dëkk bii nu toog tey sëñ gaawaan moo ko sant sanc ci ndigalul seexul xaddim moog seex Ibra la joxaloo woon ndigal ni ko yaari seex yi kenn na ci kenn sanc gaawaan ba ko ba mu ko defee maam seex ante jóge càqami ñëw sanc si gaawaan seex Ibra dégg ko ni ah man de seex naxati na ma yaari mbubb yi nu ba mel ni mbubb mi nu sëñ Touba boole woon day seex sol na ko bàyyi ma moo tax mu jóge fi moom it sañc langaar langaar gi seex Ibra ko sañc gaawaan gi seex Antaak moo ko sañc ci ndigalul sëñ Touba. kon loola bu amee tey mu nekk fi diirab li mu fi nekk ba nit ñi fi jiitu ñëpp ni ñu ko waxee ñu dem ba suuf soosu itam dem ba bëgg a génn ay loxoom. dem ci yeneen loxo alaaj sëñ tàkko mi fi nekk di doomi ala doomi Cheikh Cheikh Sidil Muxtaar di ñaareelu xalifaam sa dax sëñ Muudu Maamun mooy premier xalifaam alaaj sëñ tàkko moo ca topp ci loolu ca la nekkee nag ci nekk fii ci gaawaan di fi liggéey ngir bëgg turu gaawaan wii ci turu maam Cheikh Anta bañ a fay mu topp ko topp ko kere ba mu fiy jógee di dem Tëngéej di toppatoo ci suuf si ci naar bu ñuy wax tubaab bu ñuy wax Angalbeer booba mi ngi ànd nag Baye Thierno Kane ak Baye Ibra la ñu àndalan dem ñu dem fa fekk fa dégg nga maam ku ñuy wax sëñ Mbaala Kebe moom moomee moo doon liggéeyal tubaab bi sëñ euh, sëñ euh, sëñ gaawaan joxoon suuf si mu ni ko mbaaloo mu ni ko mbàkke mu ni ko duma fi añ duma fi reer ndareeg li ma am bëgg li ma bëgg awma ko mu ni ko mbàkke loo bëgg mu ni ko suufu gaawaan dellu ci turu sëñ gaawaan rek ma tax a jóg ndareeg loolu amul nag duma fi lekk duma fi naan mu ni ko sumul mbubi te wékk ko te ndékki li nga bëgg da ko am ba àndee di dem alaaj sëñ tàkk bàyyi fi bàyyi Ibra Kebe ak bàyyi Cerno Kan waxanteeg moom fekk tubaab bi naweti na Dakar Touba euh, euh, Belsi naweti na ba mu nawetee bàyyi fi rakk ji mu tëll garaam ko waxanteeg moom ba ñu d'accord ci ay kaddu mu yëkkati la mu am def ko ci ñu yóbbu kayit yi domaine yeesalaat ko mu ni ko fu koy def mu ni ko ci turu maam Cheikh Anta Mbacké kon loolee alaaj sëñ tàkk moo ko indiwaat ba tey jii ni mu nekk ci turu sëñ gaawaan mu wax ne amut doom amut sat amutub taalibe ñëpp ci yem addiya sëñ gaawaan la kenn mënu koo jaay kenn mënu ci dara sëñ gaawaan na ko moom loolee alal sëñ tàkko ko jëf fii ci gaawaan kon jaaraama alal sëñ tàkko na ñëpp ni jaajëf alal sëñ tàkko nag na ñëpp ni jaajëf alal sëñ tàkko waaw moom moom yi nag ku bëgg sëñ gaawaan la dax moo jënd suuf si jënd suuf sa ci njaareem ak sa ca nag fën na fun sëñ gaawaan aman suuf jotaat na ko ba dee ko ci turu sëñ gaawaan kooku kon liggéeyal na sëñ gaawaan bëgg na sëñ gaawaan yàlla na ko yàlla fay waaw nu bëgg nag képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bii tey góor mbaa ngay jigéen la la yàlla di wërsëgale te tey jii la la yàlla di wërsëgale 1000 francs 1000 francs yooyu par par weer lu yomb la tey lu jàppandi la manees na koo def te doo ko yëg te bu boobaa bu dajee dana mu doon njariñ ci gaawan ci kanam hmm. na ci ñoo ngi ci soññ ñëpp nag di ci soñ suñu bopp te bàyyiwunu kenn nag góor ak jigéen mag ak ndaw tey Baye Aliou Diouf nag am na lu mu waxat danoon dafee masana woote am ab loolu ba mu waxee ba yeggal daal di ne ah, def leen ni man génne la ñuy laaj mu joxe ko daal ni def leen ni man ku defoon nu man ñu fudd sa ndigg kon nag na kenn ku ne def ni moom lay def ja nag li nga xamante ne bi moom la ñu bëgg di gaawaan ca kanam mille francs ak carte wi muy wi muy mille francs loolu yi lañu bëgg kenn ku ne def ko fukki weer ak yaar joxe treize mille francs bi jëfewut te kenn ku ne boo xëyee di nga dépassé lu ëpp dégg nga maam treize mille francs kon nag na ci ñëpp am jom te lu ci te ne nag liggéeyal sëñ yàlla la ak yonent bi sëñ gaawaan ak liggéeyal suñu bopp ndax gaawaan kat taaru na ndax sëñ gaawaan toog na fii ci taaxam kaw bi daal di saa bàyyi ma ko lii booba sey sayu xat la fi sëpp ba mu dikkee mu boole ko sëñ ma seer jaane mu ne ko ma seer mor jaane mu ne ko mbàkke mu ne ko ku ne buy dem na dem ci bokkam ba mu dikkee mu ne ko gaawaan de dana mel ni ndar kon bu nu demee ba gaawaan bëgg a mel ni ndar te mel na ni ba noppi ndax ndar mi ngi ci poos te sëñ gaawaan def na ci poos yi lépp kon nag li sëñ gaawaan def ci suñu poos yi nañ ko génnewaat delloo ko sëñ gaawaan ah, te it ku yàlla ba mu di la fay doy naag aw ma fu ma ko def du ma tax mu bàyyi day nuti rek koo tunu te def ci yàlla nag kenn du def ci yow dara wasalaamaaleykum wa rahmatullah soxna yaa liggéey bàngoo jërëjëf kan jàllo waaw jërëjëf jërëjëf Mbacke waaw madame Cissé ñëwal. ànd ko soxna Mariama ak soxna si toog bi fàttali leen mi tur bi Njole Bey soxna Njole ni ko soxna Asumay waxee mu dëkk moom ca këram. ñun suñu toogaay dëgër biir gaawaan tiituñu dara jërëjëf sëñ say ñaan gis nañ ko te ñu ngi continuer di ko sàkku. buñ jógee ci loolu di nuyu association gaawaan ca kanam ñi nga xamante ne ñoom ñoo waral jotaay bu tay jii bu jógee si CDS ñi nga xam ne tayuñu benn yoon ci ñun ñoo ñuy jàppale ci liggéey bi mooy CDS gaawaan buñ jógee ci CDS boobu dinañu nuyu not chef de village yëpp notable dëkk bi yëpp ñu ngi nuyu ñoom ñëpp waaye dafa di jotaayu tey bi dañ ci am ñun ñaari jàngat ñun poste de santé gaawaan bi ci njëkk moom mooy liñ naan mbooloo mooy doole yéen gëm ngeen ne mbooloo mooy doole. aso association Gawane ci kanam ñoom wane nañ ne seen dëkk daf leen ñor ñu ngi koy jëfe te ñu ngi koy wane looloo waral lii. wante ñaareel bi mooy li président américain bi doon wax naan bul xool li la état mënal waaye yow lan nga mënal état. te loolu tamit jàppaat naa ne yéen association Gawane ca kanam yéen a koy doxal gëm gën ko te yéen koy wane moo nekk nii. ginnaaw gi la loolu ñun dinañ leen gëm leen dinañ leen dëggalal ne matériel bi dañ ko jël danañ ko téye te danañ ko sàmm comme suñu moomeel comme alal boo xamante ne ñu ñoo ko moom. ba génération future yi nga xamante ne dinañ ñëw fii bu ñu fi jógee danañ ko fekk ci état wante mënuñoo tëj te du ñu beral madame la maire euh, ngërëm. parce que tey jii bi ñu doon surveiller maladie wala ñu leen tëj ci saal yi boole góor ñee jigéen dafa doon metti loolu ci ñun keroog bañ ko ko jooyee la ñu ne di ngeen am saal boo xamante ne dañ fexe ba góor ñee jigéen ñi duñ bokk fi ñuy nekk. te je pense que bu ñu toogee ba dajaloo tey jii dinaan dañuy wut matériel salle boobu moo ko waral jërëjëf madame la maire vraiment sa taxawaay rafet na tax nga yow jooy ñu dara damay dem sa district ñu naan ma madame se gaawaan dafa stable léegi man leen ah ñu ne dañ fa am yaay maire yaayoo nañu doomoon nañu taxaw na nag madame la maire wane na ne santé sans compétence transférée la te moom mu ngi koy doxal ndax bañ duggee fii ba léegi ñun suñ dotation musta manqué dañ koy bàkkoo buñ taxee di projet dañ naan post yéen ñoo joxeegul ñun suñu bos mooy njëkk a génn mooy li nga xam ne mooy ñetti millions yi ñuy jox ci garab at bu ne duñu toog sa ñetti weer ci at bu taxawee te jotuñu ko saa yi suñu taxawee ne madame le maire mu ne seen dotation dem leen Diourbel jënd ji leen ko loolu moom moo ñuy dooleel ci suñu liggéey jërëjëf di nuyu madame euh, suñu yaay Astou Mbaye suñu yaay astu mbay nga xamante ne vraiment jàpp nañu comme doom téye nañu jàppale nañu saa yi suñu jaaxlee bu ñu ñëwee ci moom it mu dalal ñu di tëj bañ a gën a guddal kàddu bi ci sant ñëpp di gërëm ñëpp vraiment sant kontaan nañu jërëjëf merci. ñu nu fi jiitu ci mboolem mbooloo mi fi toog ndax mate na sëkk waaye nag duñu mën a ñàkk bañ a tudd turu kilifa yi ngir ndigal li ñuy def ci seen kanam moo tax kon nu ngi siyaara bu baax a baax ki nga xam ni moom la yàlla dogal muy kilifa jataay bi de Serigne di Mokhtar Mbacke. moom Serigne Ibrahima Mbacke Ndar yàlla dogal mu nekk tey ci jaboot ci bopp njabootuk maam Cheikh Anta gépp ñu ngi koy nuyu te di ko ziyaare te di ko jox waayam di nuyu bu baax tamit mbooleem kilifa yëpp waaye di ci jiital ki nga xam ni mooy Serigne Mbacke Anta di xalifab alxaaji sëriñ Takku di koo xam ni man damay wax ni li nga xam ni eh, daraja féetewu ko kaw ginnaaw eh, nubuwa muy siddiqiya loolu moo nekk ci moom muy déggu ku ko xam loolu nga ko xamee kon Mbàkke yàlla na yàlla yàggal sa taxawaay yàlla nga gudd fan yàlla nga wér sa yéene ci maam Cheikh Anta yàlla na ko matal nanga ko bëggee waaye ñu ngi lay sant it ci turu gaawan ci kanam gépp di nuyu kilifa yëpp sëriñ Mbàkke Anta moom sëriñ Ibrahima Mbàkke Ibra Astu Caam di ku baax ku woyof te mënoon a diis lool kon Mbàkke yow yàlla guddal sa fan te wéral la di nuyu seen rakk ji ci seen seen ron di sëriñ Mbay Mbàkke waaye di nuy kilifa yëpp yi tamit euh, li ñu santoon nag noo ngi ciy jégg lu baax a baax ci kàddu yi waaye du dara lu dut kàddu yi cant ak ngërëm yoo xam ne mënuñu ko ñàkk jagleel ñenn ñoo xam ni bu ñu leen ko waxee mel na ni wax nañ ko mbooloo mépp loola ka ci jiitu mooy suñu président d'honneur di Serigne Mbacke Anta mii ma tudd léegi ñoo ngi koy sant ci turu mbooloo mépp ci turu président waaye ci turu xidmatul muxtaar gépp te di ko ñaanal tawfeexu suñu borom yàlla defal ko ko tey sàkkuwaat ci moom ñaan fu nu toll ba dalal suñu xel gii nga xam ne def na ko ci liggéey bi ba nu ñeme ba tax tey jii fa nu mën a yegg ñu man faa yegg loolu lépp ginnaaw ndimbalul yàlla ndimbalul sëriñ bi moo ñu ko defal ak jàppaleem ci saahir ak baatin nam ko waxee woon kon ñu ngi koy sant waaye mënuñoo ñàkk sant yi tamit ki nga xam ne tudd nañ ko léegi mu nekkoon feek ñun daaw di sëriñ imam Diop defoon ci act bu symbolique ci gaawaan ci kanam mooy mooy ki nga xam ne mooy njëkk a dagg carte de membre njëkk a dagg Russie euh, at mi yëpp. Euh, ba noppi xiirtal ci ak njabootam ki toogoon fii léegi di wax ci cadre social ci la bokk di Serigne euh, Moustahine Diop kon moom itamit ñu ngi koy fàttaliku di ko ñaanal yàlla sunu borom dolle ay ngërëm ak i leer ci moom ak mbooleen ku fa fekk ak ku ko fa fekk di sant bu baax. sëriñ Ahmadou Mbakke xalifab sëriñ Mor Fati moom itamit noonu la ko defee keroog ba ñu demee ca moom mooy njëkk a jënd ba noppi jëndal mboolem njabootuk sëñ Mor rawatina ñu ci gën a feeti gone kon moom it eh, yeyoo na ay kàddu yu sant ak ak i ngërëm. waaye niki noonu eh, sëriñ bi nga xam ne moo feggoog sëñ Mbacke Anta Baye Mbacke di sëriñ Mbacke Anta moom suñu Ibrahima Thiam ñi ngi koy sant moom tamit bu baax ci tuuru gaawan ci kanam ci engagement bi ci bëgg gi ci jàppale gi gunge gi di ñaan yàlla yàlla yàggal taxawaayam di sant it xalifab sëriñ Asfale di sëriñ Fallu Mbakke di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te waaye mënuñoo sant yi ñàkk sant kenn ñenn ci bokki taalibe yi nga xam ni xëy na tudd nañ leen fi waaye faaw ñu tuddaat leen muy sëriñ Mamour Niang ci jëf jëre jooju mu xam ni def na ko ñu ngi ko ciy sant ci turu gaawan ci kanam ñëpp waaye di sant waa Italie rawatina ci njiitul sëriñ Mballo Kebe di sant it waa états ba tey ci njiitul alxaaji Tàkko Jeng di sant kenn ki nga xam ne moom it daanaka sant ko sax mënoon naa ñàkk ndax lii ñu koy lii ñuy def gënuñu ko cee yey ndax doomi dëkk bi la. Euh, yaakaar ni ñu ni ñu yaakaare maam Cheikh Anta rek la ko yaakaare di taalibe ni ñun di Serigne Moussa Sène matériel yi am na ci loo xamante ni cay jamono jëndoon na ko ci matériel def ko ci liggéey bi kon moom ñu ngi koy sant di ko jaajëfal bu baax a baax waaye di sant koo xam ni it mënuñu ko ñàkk tudd ko te buñ ko tuddoo ñëpp dinañ xam ne yàllu na rawatina ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom liggéey bi muy Serigne Takko Fall secrétaire général mbooloo mi ànd ak Serigne Pape Dieng ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci taxawaay bi ci liggéey bi fu gaawaan ci kanam yegg tey ñu ngi seedal suñu borom di ko seedal mbooloo mi ni bokk na ci ñi ko fa yeggale ñu ngi koy sant bu baax. di sant yi tamit madame le maire soxna yaatu ka yaaku kan man damay wax ni moom ñëwut statut euh, maire ci biir mbooloo mi dafa ñëw en tant que taalibe en tant que soppeb gaawan dëkk gaawan yéene fi liñ fi yéene doon membre ci biir gaawan ci kanam. kon moom ñu ngi koy sant bu baax a baax ci liggéeyam ci taxawaayam ci jàppale goo xam ne mi ngi koy jàppale ci saa yu ñu soxlee moyen mu yëkkati ko def ko ci suñu disposition ba la ñu bëgg ñu am ko te loolu tey jii moo ci mujj kon ñu ngi koy sant bu baax di sant it Serigne Moussa Thiam Thiamène xalifab Serigne Aliou Thiam ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ñi ñu war a sant bari nañ ndax ñëpp jëf ñëpp am yéene te innamal amalu bi niyaati waaye nag li ma ko waxoon sànq rek am na ñoo xam ne bu ñu leen tuddee mel na ni tudd nañ ñëpp kon ñi ngi koy ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di yemale foofu kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi nuyu ñëpp di ko teg seen loxo euh, maire bi nag euh, day liggéey waaye liggéey bi léeg-léeg dafa dul mat parce que li muy am ci budget li ci ëpp du mat li nga xam ni moom na population yi soxla euh, keroog bañ koy installé fii bi ñu ma wooyee dama seetlu ni Gawane ca kanam moom partenaire u mairie bi la suñu premier partenaire tey fii ci commune gaawaan mën na nañoo wax ne Gawane ca kanam la parce que lépp lu mu liggéey daa ñëw mottali si mairie bi ndax mairie bi mënul lépp budget la yor te budget bi ah su ñëwee par at lay ñëw suñu ñëwee ñu woo conseil yi séddale ko leneen li ci des muy recette propre wala ay recette yoo xam ni tey ay appui budgétaire te recette boobu tey amuñu ko ndax fii ci gaawaan fayu fi impôt ci commune gaawaan fayu fi impôt jafe na marché bi amul juuti kenn du fayeeku juuti cantine yi fi nekk 1000 francs lañ ciy fayeeku te mille francs yi far ñi ko yor ñu ngi toog fii ku nekk jël nga sa cantine suuluye waaye doo fay mairie bi mu nekk ay problème yoo xam ne di daral bi di oto yi di lu mu doon muy recette propre mënu ñoo fexe ba am ko lu tax ñu jëloon personnel di leen fay ñu dem a dem ba mën a embaucher nit infirmier aide infirmier ci dispensaire bi mën a embaucher chauffeur ambulance bi mën a embaucher ay gardien mën a embaucher ñaari chauffeur mairie bi mën a embauché waa état civil loolu ak ñi ngay xam ne ñooy bale ñoo ñëpp ñu embauché leen dafa fekkoon booba miin bi moo jëloon engagement phosphate bi di joxe cinq millions par at mu def ko ñetti at lànk taxaw joxeetul dara tey ñu des ci biir amatuñu recette amatuñu dara te lii la état di jox amoo droit faye ko personnel amoo droit yóbbu ko fonctionnement investissement kese la man keroog bu ngeen ma seetsee ni da ngeen am lu toll ci ñaari million te da ngeen a fas yéene yaatal ambulance la seet seetlu ni gaawaan moo jëkk a doon problème bi fekk ambulance bi paan ma ne leen bu leen ko ci def su ngeen ko ci defee du départ noonu léegi ñu ne ma ambulance bu bees lu muy jar man leen bu gën a moyen di 4 x lu mu métti métti métti fukki million ak juróom jàpp fukk ak juróom-ñaar di ngeen ko def mu soog a jël confort ambulance sama moroom yi ma dendal di caxar di tay ba mutu fa di kër ngal te jënd ku ci nekk loolu nga jëndee te loolu bu ngeen ko jëndee xaalis bi dina jeex wala balaa ngeen koy am dina xaw a métti ñu ne ma kon nu ñuy def ma soog a génnee projet bi nga xam ne lancé nañ ko ba ubbi ko. ñetti fan rek la am ngir ñëw seet si ma man leen projet ñaar fukki million nga ngi ak benn eh, amaat na beneen bu ci toppaat bu juróomi million ak ñeent fukki junni yoo xam ne moom lañ bëgg a defaree dossier léegi te ngeen a xaar ma tabax foofu ndax docteur yi dañoo am problème ndax saa bu ñu dajalee malade yi góor ñi ak jigéen ñi mag yeeg ndaw yëpp benn salle lañu jigéen ñi wasin sax am na ci yoo xam ne dañuy am problème ñu indi leen ci salle bi góor ñi nekk man ne leen kon xaar leen tabax bi du yàgg ndax tabax bi ñoo ngi ko compté ci téeméeri fan maanaam ñetti weer ak fukki fan su ko defee ngeen jël seen xaalis ndax awma équipement équipement bi maa ngi ko jëmewaat déwén ak jàmm xaalis su déwén bi lay prévoir pour ñu mën ko koo jëndee ñu ne kon ñu def la ngeen di ñëw ci man ay yoon ay yoon ñuy waxtaan di ci gisee di ci xool nu ñuy def ba ngeen dem ci madame Cissé madame Cissé limal leen li manqué ci dispensaire bi yëpp bâtiment bi pare man leen su bâtiment bi pare bu ne maire bi tabax na gaawan ca kanam moo équipé su boobaa loolu moo gën a doon luy impact looloo tam ngeen dégg ndigal sama ndigal ak ndigalu madame Cissé ngeen topp ci ba jënd tey li nga xam ne tey mooy équipé tey ñaari salle yooyu ndax ñaari bureau nga fa ñaari salle yu ànd ak seen salle de ànd ak lépp kon maire bi day am ndam fu mu toog wax gaawan ca parce que dëkk bu fekkee ne maire bi day liggéey nga gis ñu jàpp rek danga euh, gouvernement bi ci boppam sax moo lay jëkk a fonk tey képp koo xam ne kii tey yaa ngi xool gaawaan tey di nga fonk gaawaan di nga ko jox cër ndax xam nañ ne gaawaan tey wuñ seen loxo tey wuñ seen tànk ci li nga xam ne tey mooy seen soxla te gouvernement dina am courage defal leen ambulance bii nag gàtt bi si moo ko joxe woon ba mu koy joxee soowoon nañ ci lu bare ba médecin bi atte parce que waxoon naa ko baaxul nanguma ko woon jëluma ko woon gaare nañ ko ci miin bi lu mat weer ak fukki fan médecin bi ci boppam moo ma woo ni ma il faut nga jël ambulance newoon naa ko baaxul ñu fi nekkoon ñëpp xam nañ loolu kilifa yi fi nekkoon yëpp ku nekk dem naa cee wax ko ni ko Ford la waaye venant la baaxul te wàcc naa ko fa weer ak fukki fan laalu ma ko te li ma ci waxoon yëpp mu ngi nii tey li ngeen doon jàmbaar fexe jëkk nañoo dem ñun un million deux cent mille def nañ ko ci ban ko ca defee jariñu dara yéen ngeen taxaw Pastef bu ngeen ca am taxaw ca tem tem ak mécanicien bi dara ump ma ci ndax saa fu ngeen toll wax ngeen ma ko fu ngeen toll man kon lii ngeen rendre compte su ngeen ko def loo ne man mën naa def compte parce que amul dara lu ngeen di def te ñëw leen ci man wax ma ko tey lépp loo xam ne tey maire bi mi ngi koy liggéey tey di ko liggéey tey ci ay attam wala mu di ko def tey ci loo xam ni tey mën nañ koo wax ni lii mooy population wala lan la population yi defal gaawaan tey ak appui bu fi am tey kuy partenaire rek bokk ngeen ci man mën na maa def compte bi sans kenn di wax sax mën naa koo wax ndax amul lu ngeen di def te yëguma ko te su ngeen tefoon parallèlement taxaw jàkkaarloo maire bi di def tey jii duma am fitu sax taxaw fii di jéem a réceptionné wala may jéem a lim wala may jéem a xam ndax su boobaa yoonu maire bi da ci du nekk hmm. te itam fit bi ngeen di am ak ni ngeen doxalee ba tax maire bi tey muy bagage boo xam ne population yi lañ ko nangul tey population commune gaawaan gépp la du gaawaan kese parce que lii ñëpp ciy jariñ amul kenn ku muy jariñ wacc sa morom du gaawaan kese kon sant nañ leen ah fu mu war a yegg dinañu ko fa yeggale fu nu war a waxee dinañ fa wax fu ñu ko war a bindee pour rendre compte li ngeen def dinañ ko def si seen euh, ak yow dangaa ñëw yaag Mariama di liggéey ci dëkk bi ay nit jiitu woon la fi gërëm nañ leen waaye yow yaa Mariama ni ngeen def bare na liggéey boo xam ne bi tey su ma juumee ba ñëw dispensaire léeg man maay taxaw régler malade yi parce que ci nu leen malade yi def noo xam ni léeg seen bureau yëpp ñi tëju yanu seen i loxo di jooy am nañ ko ñaari cas bu yàggul dong ci 15 jours yi passé une heure du lañ may woo téléphone pour ma assister leen ndax ay nit taxaw di leen tumbale te da ngeen ragal xeexu leen fi xulewu leen fi di recevoir malade bi correctement su ma leen téléphone sax ni leen malade yi bare na ñu nangam nangam tey loolu mënoon ngeen a taxaw ni ma du sa prérogative du sa wan mais dama leen di woo ni leen malade yi dispensaire bi bare na nit ñaa ngi toog fii ñu ngi toog fii soññi leen da di taxaw di bu ba ngoon jot amul wàcc amul dara kon yow itam ci turu population yi dama leen ci gërëm su fekkoon defe ngeen neneen kon ba tey dem naa ci kilifa yi dem waxi leen ndax ay nit jiitu woon na leen fi doon ko fi def te kilifa yi dañoo àtte woon ba soob ndax bloqué naa fi fond de pension ñeenti at yàlla yoo xam ne xaalis bii muy tudd ñetti ñetti millions yi génn par weer par at ñetti million yi bloqué naa ko ñeenti at yoo xam ne génn ma yore ko ma dem ba ñu yokkoon ñu budget ba mu doon ñaar fukki millions yu teg yor naa ko fi mbay jeng lu moo fi ñëw ak Mariama ma ko génne benn yoon fukki million ak benn ci la dispensaire bi amee dépense ba léegi te su fekkoon ni deful ko ko na ma defoon sa morom yooyu laa lay ndax booba doo xool doo gis te mënaat yi duñ fay une fois nga indi ko kenn dootu la kon yooyu itam gërëm na nga sant waan. huwa lil madina bi amri rabbi fasana diina وسيلتي لمالك الرفيع محمد الخير ولا سفيع والي وصحبه النجوم الخاعر النفوس والرجيم هسا وين اليوم يا وابو خيرك في دارين لا أحاب وإنني يا بر يا كريم daayin wa an sukrika laalimu ñu ngi jiital ci nuyoo bi nag sëriñ siiti Mbacke mi fi nekk di sunu kilifa te sunu borom dogal mu euh, yamale ko ci mbir mi nuy sàkk ci moom mu ñaanal nu ci bu baax sunu borom defal nu euh, li tax mbooloo mi daje mu defal nu ci lu kawe sunu jort euh, ñu ngi nuyu nag bokk yëpp Euh, di jiite dundal bi itam nag ñi nga xam ne ñoo jiite euh, gaawante kanam muy Serigne Jiiri Mbacke euh, gannaaw waxtu buñ ko tuddee rek ñëpp ci biir góor ak jigéen bàyyiwuñ kenn ñu ngi leen di nuyu te di leen sant day mel tey daanaka wax ci jërul guddal ndax jataay bi xaw naa yàgg maanaam dañuy koy tënk ci ñaari kàddu rek mooy kàddu yi daanaka muy genn kàddu muy sant yàlla sant yàlla rek moo war ndax. wax moom lu li muy li muy junj mooy jëf kon bu jëf teewee wax amatul bëreetul njariñ te li ngeen jëf gis nañ ko mu ngi nii ñëpp yi teg suñu bët waaw ni may profité di sant itam waa poste de santé bi nag ci njiital madame Cissé ndax balaa lii di ñëw souffrance bu ne eh, daj nañ ko fii ci dëkk bi ci loo xam ne man xam naa ci eh, lu baree baree baree bari lu ma teewe naa ci lu bare bari itam kon noo leen di sant te di leen ñaanal bu baax di leen xam ne liggéey bi ñu liggéey liggéey la boo xam ne danga nga ciy liggéey euh, li nga ciy amee ci àdduna loolu bénéfice la waaye li nga xeeti liggéey yi moom payu sunu boroom bi mooy li ci ëpp solo bu ko defee nag beneen kàddu bi may wax mooy ñun ñëpp war nañoo xam ne euh, suñu borom moom lu mu wax ku ko def gis njariñam ku ko deful itam gis wàññinam mooy sunu borom daf na santoon ñu booloo nekk benn te ba ca teqali ko loolu la ñu yàlla waxoon ci alxuraan mel na ni yéen léegi xam ngeen njariñ lu aaya boobu dégg ngeen ko jëf ngeen ko gis ngeen njariñ li ndax saa bu suñu borom saa bu digee saa bu diglee rek day digee boole ca saa bu ñu defee lim digle rek daal di gis njariñ li noonu noonu noonu booloo nekk benn te bañ a teqali ko def ngeen ko gis ngeen njariñ li leer na leen ba ngeen defagul lii kenn ci dëkk bi musta mën a def lu toll lii ci dëkk bi bu ngeen dajalee nag seeni ñaar téeméer ñaar téeméer gis ngeen lim jur kon nag jërëtu leen a soññi ndax def ngeen gis ngeen aaya la boo xam ne suñ borom béralu ko kenn ñëpp même ñu dul ay jullit gis nga américains yi nga dégg nañu aaya bi boole seen juróom fukki état mu nekk benn état ñoo mën ci àdduna bi lu leen neex la def ci àdduna bi loolu nag mooy bind bi nga xam ne moom lañu war a jàng te ñi ñu gën a soxla ñu gën a dégg aaya boobu mooy yéen ndaw ñi parce que ndaw moom la diina soxla moom la àdduna soxla kon nag yëf yaa ngi noonu leer na nañ nan boole suñ bopp te fas yéene suñ gox ñu yóbbu ko ca kanam fi ñu ko fekk nañ fexe ba jëlee ko fi yóbbu ko fi kanam danañ sant bu baax nag suñ kilifa gi nga xam ne te di ko ñaar muy El Hadj Mor mi nga xam ne moo fi wutu woon suñu waajur lu mat ñeent fukki at ak juróom def fi kem kattanam ci dëkk bi lu ne def na ko fi def na fi ñaan def na fi lu ne ñoo koy sant te di ko ñaanal waaye damay wax ne man li ma fas yéene daal mooy la doon yéeneem la ko ca suñu borom dogalut mu àggale ko fa lépp mu fexe ba loolu ma àggaleel ko ko incha allah te ànd ko ak yéen na ndax kenn nit mënu dara kenn nit moom mënut a jëf mu sotti ki nga xam ne moo ëpp kàttan ci li yàlla bind. xam ne suñu borom li mu ko defal defalu ko kenn muy Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam sunu borom daf ko ne nag na la sa borom doy. yaa yoon nabi xasbuka allah dana sa borom doy waaye wa man leen moom mu'minin ak ñi la topp te gëm yàlla. moo lay xamal ne kenn mënu kenn nit mënut a def dara lu sotti yooyu yu ay théorie yu li ñuy wax waaye dara sotti kenn mësu fee def lu sotti menum yow. yonent bi saa salaam moo taxawal diine lislaam waaye ku ci dindi li ci Abubakar def Omar Ousmane Ali ak yeneen saaba yi yëf yi daanu. Serigne Touba mi ñuy wax nga xam dañ ko tàmmal ci boppi nit ñi ci noppi nit ñi naan moom rek ak ba yooyu dañuy wax rek rakkam yi dañ cee jàppoon. ba mu jógee di woote liggéeyam bii rakkam yi mu bokkal benn waajur ñoo ko njëkk a wuyu ñoo ko njëkk a nangul te rek ku fi jóg say bokk buñ la teqee rek nga daan waaye ñoo ko njëkk a nangul te bañ koy nangul waxtu wañ ko nangu nangule mooy waxtu wi gën a jee gën a jafee nangul. mooy booba seexal xewagul xewal yi bëreegut booba bu amee soxla ci ay rakkam lay dem ci borom gaawaan lay dem boo amee boo amee soxla soo xam ne ci wàllu xaalis la jëm ak yu mel noonu ci borom gaawaan lay dem bu soxlaa la lee dem ci kaneen ci waxtu woowu la ko ay rakkam nangul topp ko te booba fekk na ñoom rakkam yooyu jàng nañ ba xam ne yàlla tere ak lim digle xam nañ ne yoon wii di siraatu mustaqim la sun borom ne ku ko wàccul di nga am li nga bëgg fii ak bëgg li nga bëgg fële ñu xam nga ba noppi ne yoon wi duñ ci dox mukk lu dul Sëriñ Tuubaa day jiituñu topp ci ñooñu ku defuñu dara da xamul da ngaa jàngut ñoom def nañ lu rëy te wax na ne bi mu jógee ci géej gi bi mu ñëwee bi mu dajeek boroom daalu Daaru Mooti daf ko ne na soo demoon ma des fi ni ma toppatoo sama gannaaw jortuma ne dinaa ko mën kon yëf yi ñi ne ci mbedd mi te xamuñu li xew rek ñoo koy wax waaye yëf yi dañ cee def bu baax a baax sax lañ ci def Sëriñ Tuubaa nag moom day spécial ko xam ne moom moom hors série la bokkut ak bokkut li ko suñu borom defal defalul kenn ndax la ko boromam jaral la yi nag jaralut kenn moo tax waaye nag yëf yi ñëpp ci jàpp te naka jekk nii la adduna masaan di doxe ku bëgg boo jë boo boo xëccee lépp ñëw da ànd ak say bokk kon maa ngi woo waa dëkk bi yëpp muy bokk yi di taalibe yi ak képp koo xam ne dangaa dëkk gaawaan ak ku fi dëkkoon te nekkatoo fi ñëpp niñ ko waxee woon ci yoon mu njëkk wa ñëpp lañu woo ni ma ko waxoon rek kenn képp lañ ci woowu na mooy koo jéem a gàllankoor ndax koo jéem a gàllankoor bis buñ la bis buñ la xamee na xam ne danañ la weer te danañ dal sa kaw te ñëppay dal sa kaw itam. kon nag ñëpp lañu woo xeebuñu kenn ñaar téeméer yi tuuti na waaye xam leen ne ñaar téeméer yi ku ko ci def benn yoon yaa jënd rajo ba ca jàkka ja yaa jënd matériel bii ndax buñ ko ci dindee rek keneen dindi keneen dindi xaalis bi jeex bu kenn xeeb li nga ci def bu kenn naw li nga ci def yàllaay fay te yàlla ku mu fay nga loolu rek mooy kàddu yi nañu bokk góor góorgóorlu te génn te jiital njariñal dëkk bi fas yéene jariñ dëkk bi te bara te bañ a jariñoo dëkk bi loolu nañ ko fas suñ ko defee dëkk bi jëm ca kanam bu ko defee bu njariñal dëkk bi jàllee nag suñuy njariñ ñu door ko caa teg waaye nañ mujjee suñuy njariñ jiital njariñal dëkk bi buñ ko defee rek yàlla dana dimbali yàlla nu yàlla li ba liñ ciy def ak liñ ci yéene suñu borom defal ci lu kawe suñu jort ndax ki ngeen ñi ngeen koy royee booy Touba ca kanam tàmbale ba gis ngeen fan tolloon gis ngeen tey fi ñu toll tey ñu ngi àgg sax ci defar ay tëli di bënni forage di def lépp ci seen matériel bopp lañ koy defee loolu bu leen gëm mukk na ju def leen a jomb mën ngeen a dem ba jot leen mën ngeen a dem ba mel ni ñoom bala ñuy def ngeen di ko def yàlla leen ko yàlla yombal ci barke Serigne Touba. bis bi bëgg nañ ci lool ni ko sëñ Mbacke Anta bu suñ tànk waxee xeetu jaamu yàlla boo. boo xam ni ku xamoon fa mu toll waxuma ñaar téeméer da ci waaye da nga joxe junni kon nag yàlla leen ko suñu morom yombalal yóbbu leen fu ngeen ko bëgg a yàggee. wa innani ya barru ya karim daayin wa an sukrika laarim